vol inaugural euh, Dakar Jeddah mu nekk nag lu am solo parce que mu nekkoon benn bëgg-bëgg boo xamante ni les pèlerins yi nga xamante ni ñooy jóge Dakar ñu ngi ko doon soxla te loolu su amee dañuy sant bu baax euh, féliciter le directeur général de Air Sénégal depuis que bi mu nekkee si bopp bi ba léegi gis nañ vraiment les innovations de taille yi nga xam mu ngi koy def pour satisfaire le besoin des passagers sénégalais te loolu su amee dama jàpp ni euh, aéroport international Blaise Diagne moom moo nekk société bi nga xamante ni mooy teg infrastructure yi pour que compagnie yi mën a am ay jumtuwaay yu am solo en termes de sûreté et de sécurité parce que bu ñuy wax euh, euh, aéroport sécurité lañ wax ak su sûreté donc ñun suñu rôle mooy ñu teg infrastructure yoo xamante ni les passagers parce que si suñu projet bi ñu am ëpp aérien da dañ see am benn pàcc bu am solo mooy expérience expérience passager te loolu mënuñu ko def sans pour autant que ñu ànd si ak Air Sénégal donc tey jàpp naa ne Air Sénégal mu ngi traduire en nag vision bi nga xamante ni le président Macky Sall am na ko pour def suñu aéroport le premier hub aérien du Sénégal donc mu euh, ngi ñaan rek lii ñu jëmlal tey mu nekk loo xamante ni day dox donc woo ci tous les sénégalais xam ni ñoom lañu ko defal ñu jàpp si bu baax ndax euh, bu doxee euh, compagnie bi dina dox mais également réew bi dina dox.